ahousubillahi min sheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéenay seetaan seen site internet bi di Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaare di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun saa su nekk euh, di jaare bu baax it euh, mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel site bi Euh, di leen ñaanal jàmm bu baax euh, di rafetlu ànd goo xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun. Euh, di ci jaare bu baax suñu naataangoo boobu nga xam ne ñu ngi ci daanu Argentine alaaji a sekk ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la nekkal foofu ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax te di leen ñaanal jàmm di sàkku ci sëriñ bi it mu gën ñu ñaanal bu baax ci liggéey bi nga xam ne fas nañu yéene door ko ak yéen. Euh, donc nag tey ñi ngi am mbégte ak kontante bu baax a baax ñëw teew ci jàmbaar ji nga xam ne nii ñëpp soxla nañ ay kàddoom euh, rawatina fi nga xam ne fi la jamono toll euh, képp koo xam ne rek dégg nga ay kàddoom genn kàddu goo ci jël rek soo ci defee repère moom naa defal sa jamono kooku tey moom la ñu ñëw seet si fii nga xam ne mooy ci këram gi nga xam moo nekk ci diwaan bu xayra ci Paaleen muy jàmbaar joo xam ne ku ñëpp ràññee la te naw ko lool muy Serigne Cheikh Fall Mbawar Euh, moom sëñ Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall moom la ñu fas yéene dékk suñu micro tey ci ay kàddu yu barkeelu yoo xam ne rek euh, fas nañu yéene ànd ko ak moom. su ko defee rek ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ne it euh, moom moo nekk ci sama côté ndeyjoor di sama xarit Abdoulaye Sambou moom tamit di ko xam ne it ku ñëpp bàyyi xel ci diwaan bu Bawol. moom tamit ñu ànd ci ak moom euh, ci di jaajëfal ki nga xam ne it moo ma nekkal ci wàllum euh, xarale gi euh, jàkkaarloog man muy sama cameraman maa ngi koy ziar bu baax kon sëriñ bi tubaa Touba Argentine TV ñu ngi lay wax asalaamaaleykum. ñu ngi leen nuyu di leen gërëm ci seen i taxawaay ak seen i positif ak seen i taalibe jéem a xeñtu lu baax ak wane lislaam ak yoonu sëñ Touba rek foofu waaju baax nekk rek jëf yu baax yi ñuy def yéen ngi koy wane te wane yu baax yi. moo gën wane yeneen yi ci des ndax sëñ bi dane maa i rasaayil daa bëgg ñu far ñaawte wi soog a def mooti falaayil bu ko defee nag moo yël manaasil baadal afaay day yomb jërëjëf jàmbaar jooju tey moom la ñu fas yéene àndal ci waxtaan bi muy Serigne Cheikh Fall Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall ci kàddu gi ci présentation bi seen mbokkaaroon si sa ngeen ci àndal euh, moom mooy présenté li nga xam ne moom moo di euh, émission bi kon sëriñ bi rek waxtaan wi xam naa incha allah ñu ko fas yéene ko doore ak ki nga xam ne moo di jàmbaar ji nga xam ne tey euh, moom la ñu tuddee Baabul Muridina muy maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi rek ci kàddu yi barkeelu lan nga ñu mën a delloosiwaatal rek ci dundug maam Cheikh Ibrahima Fall. dundug maam dund ni gaa yu baax yi daan wut yàlla yëpp dund rek fii sëñ Touba jaar yoon woowu la sëñ Touba teg yonante bi ci la teg woon ñëpp daal ci bëgg lu baax ak jëf li yàlla santaane bàyyi tere yi rek ndax eh, njébbal gi Cheikh Ibra def yonent bee ko jëkk a def ndax mm, sun borom da ko ne woon jébbalul mu daan aslamatulillahi rabbil alamina xam kon jébbalu na sun borom ne ko fa man aslama fa awlaayka taxaaraw rasadan ku jébbalu as gor nga jubee jub nga mm-hmm. itabih millata ibrahima anii fan nag ma kaana min musrikiin kon nag toppal ngirum sa baay ibrahima ndax ma musuma bokkaaleeg dara mm-hmm. sëñ Tuubaa mm, woowu yoon la jaar baana kulli man lahu wa rasulullah dala ni yàlla allah laahi bi laa taqarar wa umri taqabala dane daa moom daa topp tànk bi yàlla daa dem ba ca suñu borom ne ko yow laay wut mu ne ko damaa siñente woon yonte bi pacte boobu dama ko noonu ku bëggatee ñëw fi man na jaari fa yow demal nag ne ko fii nga jëm si te bu ko ni ñëwoon nga mu wax ko sun mu wax ko yonante bi yonante bi yóbbuwaat ko ci suñu borom mu soog a def dala ni yàlla allah muhammadin waxaat li muhammadin li samadi xam nga da dem di ngoro ji wax ndaw sa ba déggoog moom déggoog ndeyam ñun la waayam jeesi la dee su ko paaka la dee su ko jëkk ci mbaram booy dem ca bàyyi bay lijjanti ci da nga xam ne bàyyi woog ndàqal fi nga jóge moom ba ko yonent bi yóbbu xamal ne jubowoon nag yàlla ba noppi Cheikh Ibrahima yoon woowu la jaare mm-hmm. day ndax day wax ne mas nay xibaaru jébbalam li mu wax ak sëñ Musaa Ka te ne moo ko waxal boppam mm-hmm. mas nay xibaaru jébbalam bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe kon gis na yàlla mu yebal ko ci sëñ bàmba mm-hmm. mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram ko awoon ko ay pexe Maxtaar Touré nga yori joor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yónni ko ci buur Cheikh la topp cay fexe ba gis fa Cheikh aadama gi sànni mbiram daal di ko ngoy mu won ko bàmba mbër mu rëy sëriñ ba naa ko foofaxe mu wax ko tegtal ya fa moom sëriñ bi won ko li fi moom mu xam na gis na ko ko moom mu soog a fa mbiram joxe te ñooñe ba muy dajeek moom sëñ bàmba lee baak sëñ bàmba si laak fu ne dem na fa da koy tiim ma xam ne garab bu la sutul du la may ker te ñooñe ba leen sëñ bi jëlee daanaka gidd bu doon jëli Cheikh Ibra la ndax ba mu ba mu xëyee foofu ne day dem dong la dajeek ñoom de daw di leen wër naan leen xetuk ki may wër a ngi ci yéen te xam nga ñoom ñu dëkk ak moom sax ban dañ ñu xamut xetuk Euh, ka nga dëkkal moom nag mu xam xeetu ku mu gisagut kon xam nga gisee woon nañ fudul foofu mhm. te ba mu leen bañ ko indee ba muy ñëwit dégg naa di yëg ci garab yi ak mbëkk garab yi ak naan def naa ko addiye ka ma jëm te eggaguma mhm. bi mu egg seet dañ koo làq ni kii ni mu demee dayoom bi aalam ji ñi ak ni sëñ bi toll ñi mun ko faa yóbbu mhm. wàcc ko ci bitti sëñ bi ne leen ànd ko ngeen àndal ñu ne ko àndu kenn ba mu leen waaye na egsi bi mu ñëwee moom sëñ Bamba feeñ nga rek la ko wax mu ne ko Ibra Faal moo weer mu ne ko feeñ nga danaa la weer ba nga mel ne weeru benn pan mu na ku ma eggale ci yàlla laa bëgg sëñ bi ne ko nag woo oh, loolu ci sa gimiñ laa koy soog a jëkk dégg mm. mu dugg ci sama nopp mu ne ko may damaa topp tànk bi yàlla ba mu socc sa jëm ji boo ma ko feeñalee ma jàll boo ma ko feeñalul ma jàppe la ko nag bi ko sëñ bi defee ba noppi nag dégg naa coow wax nañ fa ba tàyyi bu sëñ bi waxee Cheikh Ibra waxaat ba yàgg mu ne sëñ bi nag li nga ma jaaxale de mooy liñ jàkkaarloo ngay wax mënu ma ngay ngay wax may wax mm-hmm. nga dema tontu waaye bu ma la fekkutu moom sëb xabru dong danaa ci liggéeyal suñu borom mm-hmm. ba jot li ma bëgg ci moom ne sëñ bi nag ne ko moom it daal di aalu ne ko nag yoon woo foofu nga egsi nag fi laa jaar yonante bi ndax mayit fekkuma ko fi woon waaye damaa xam ne ci suuf si la daan jaar bi di ak asamaan seegu doon tiim ci laa jokkoog moom ba jot xaadimu rasul xam nga xaadimu rasul ak rasul li dox ci seen diggante ci at bari na waaye te tool bi ba yeesu ko woon moo fi ñëw ràdd li ko moo tax suñu blaat ne woon muridu laay moom sëñ Touba fentudub tariixa yoon wu jëm ci yàlla fàkk daa fekk yoon yonte bi farkay jëm ci yàlla ñëw laand ku ne nag du ma laay mooy ku jëmut ci yàlla rek te ku bëgg xanaa ku bëgg a baax da nga jëm ci yàlla mm-hmm. yoon woowu nag mooy yu Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra danaa murid murid Ibra Fall ndax dana bu dee yoona fu kuy dëkk ba mm-hmm. sëñ Bamba ab dëkk la maay yoon wa ca jëm mm-hmm. nga xam ne kon ku bëgg am ci sëñ bi dara da nga jaar ci yoonu Cheikh Ibra jaar ba mu nee ci liggéey boobu nag sëñ bi ne ko kon nag loo fi amut la wan ko bagage yi sëñ bi Cheikh Ibrahima ne kon lu ma fi amut dafa amut mu ne ko loo fi amut ci yow la ba mu nee ci liggéey bi ba yàgg ay yére xar muy sagar yi gaa yi solo daax sëñ bi soññi ko ci wuti yére ba tàyyi mu continuer ci liggéey bi néegu fay bàyyi liggéey bi ba am bi sëñ bi soññi ko ko bu xaw a kii nag mu soog a dem bi mu demee moo daw topp àll bi aalu ba yàgg mu yem ci guy goo xam ne dañ koo xànc ba mhm. eh, cëggali eh, wàcc mhm. mu daal di foofu far mhm. ne guy gii ci tool borom la nekk ca fi la ko yàlla fekk wodd ko kon nag du ma fa bàyyi tool suñ tubaab bi wuti leneen gënuma boromub tool far bi mu daataa egg si fekk suñ mag bet am ku fi ñëw jox ko juróom ñaari sor addee mu ñëw rek da ko jub mu sànni ko ko nekk suñ borom ma la ko jox nga xam ne kon ñooñu seen correspondant yàgg na jërëjëf euh, kookooy maam Cheikh Ibrahima Fall Euh, sëtam bii nga xam ne tey jamono soxla na ko lool ay kàddoom mooy Serigne Cheikh Fall Mbawar moom Serigne Aliou Fall Mbawar moom maam Ibrahima Fall moom la ñu àndal tey fii ci diwaan bu Paleen ci këram ak euh, seen site internet bii di euh, Touba Argentine TV ci kàddu gi seen mbokk Arona Cissé Serigne bi noonu nga ko waxee am na solo tudduna ko sax moom jàngkat bi muy kookooy borom Mbawar doonay saadix ba mooy sëñ Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall incha allah rek um, ci la ñu fas yéenee dugg it la temps que ñuy ñëw ak sëriñ bi ci yeneen point euh, ci actualité yi nga xam ne mu ngi xew ci jamono tey lëmbe jamono la temps que loolu incha allah danañ ñëw ci ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne euh, Aliou Fall Mbawal moom maam Ibrahima Fall su ko defee rek lenn ci ak dundam rek soo ko defee sëriñ bi fàttaliwaat ñu jëmm jooju muy sëriñ Aliou Fall Mbawar di woy juram moom maam Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ Aliou Mbawar day kenn ci doomi Cheikh Ibrahima rek di moom noonu doomam yëpp ay taalibe lañ soppi ko woon ci moom ndax la fay maye moo dig taalibe te sëñ Touba nu waa këram loolu leen wax du ma bàyyi kenn du ma magi kenn du ma nijaayi kenn sëñ Mor Roqe yu Busaak sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Fallou ak sëñ Massamba ñëpp ñu daan dugg mu lii fi nekk na luy jaay la njëg ko fi maye te njëg gi moo dig taalibe ca taalibe bi bi mu ko jaayee ba sëñ bi nangul ko kon njëg gi joxaat na ko addi defaat na ko addi xam nga kon loolu moo di taalibe bi mm-hmm. yoon woowee nag Cheikh Ibra sëñ Aliou mook doomi Cheikh Ibra yëpp ca ñu jaar Cheikh Ibrahima la la daan liggéeyal doonu fu jàng alxuraan ba noppi mu yabalaat ko ndar muy jàng arab mu jàng xam-xam ba mu jàngee xam-xam ba noppi ñi laaj ci école fils de chef yi mu joxewaat ko ci ba mu nekkee ci école fils de chef yi Cheikh Ibrahima sëñ Aliou bind Cheikh Ibrahima lettre ne ko nasaraan bi nga ma jox mu ne ko xam dama laa dama xam ne nasaraan mënta lekk sab xol foofee la ba bañ leen di fali chef de canton mu ne man jàngu ma ngir falu ndigal ma fi dugal ca ndigal mhm. mu dellu si Cheikh Ibrahima ko mbawor nee na ñett chef de canton yi ko séqan bis bu set bala ñoo am ci nit dara yeew ko ci naaj wala ñu duma ko mhm. te man ñi may jox dañuy bu ma génne lañ may jox <laughs> la jàppan loolu yut na ko Cheikh Ibra Ndiaye mag foofu Cheikh Ibra mas a nekk rek mhm. ba da daan dégg naa léeg-léeg jur yi jekki ba yàgg mu naan pënd bi may seen fajar de bu alifaal mba war sama doom jo ñëw ma ne moom <laughs> te na ci yoonam ba mu ko defee ba mu ñëwee njaarim nanga mi fos la fa indi yooyu mhm. ak nag ak ak jur yenn nit ñi dugg ci saxaar yi ñu ci def gaa yi yor ko di topp guddi gi. waaw <laughs> jërëjëf koo koy jàmbaar ji. ba mu joxee lépp ba mu jeex ba muy ñibbi sëñ Abdou Sakkoor mi mas na ma koo nettali ne booba sëñ sëñ Modou Mbène moom doomi Cheikh Ibrahima moog sëñ Abdou Sakkoor sëñ sëñ Aliou leen féete woon ak mag waaye dañoo doonee xaritam nee ca sëñ Abdou sëñ Modou Mbenda ko ne bu fajaree maa la yóbbu ci oto bi nee Cheikh Ibrahima nee na daa tëdd daa ba daa seet muy laajte Modou Mbenda ana Modou Mbenda ba yàgg mu ne séen naa leen ca booru ndànd ca fajar mhm. dem naa bay bëgg këpp oto bi waaye ma xam ne lii fi Aliou indi ma boole ko nekk oto bi ñàkk ñetti doom ak oto ak lii mu ma defal nu faye ko loolu du ngor soo ko defee rek sëriñ bi kon loolu rek lañ doon barkeeloo ci sooroor <laughs> mhm. bii bi ko Cheikh Ibra bi ko suñ fal tuddee Cheikh Ibra déerub li mu fi nekk ajuma ju ne day rey nag togg ay ñam ñu yóbbu ko ca mu ne da koy ngénteel Cheikh Ibra mhm. ba ajuma jëm ko jëkkee def bi mu jàllee dañoo defee nañ cale yam mu saxoo ko ajuma ju ne mu def ko 63 mhm. ba 78 Ah, da koo togg àjjuma wàccub liggéey gaaw nga xam ne kon bañan sasam mu booyee tax mu nekk ba gaaw ba <laughs> te bu kooreet day def ndog yi def àjjuma yi du nangu du ko nangoo effacé waaw ci macha allah ah, jàmbaar ji Serigne Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall kon sëñ bi rek su ko defee dañuy daal di dugg ci actualité yi nga xam ne mu ngi lëmbee jamono balañ ciy ñëw sax am na lu yees ci ci ci diggante démb ak barki démb danañ ci ñëw Euh, ci xew-xew yoo xam ne mi ngi xew ci yoon wi yëngal na it yoon wi kilifa yu baree bari di ci wax say kàddu ñu baree bari danañ ko ci yittewoo balay booba ñu jàngat jikko yu jikko yu yàqu yi gis nañ ne sëriñ bi léegi jikko yi yàqu na surtout ci ñun ñi nga xam ne mooy ñun ndaw ñi sëñ buñ doon jàngatal jikko yu yàqu yi lan moo ko. jikko de daanaka jikko yu yàqu yi de mooy mag ñi yëratu ndaw yi rek kone daal dama ne boo koy dundal ba noppi te doo ko yar da ngaa yafal waaye yëru yow da ngay fajoru dem bala ngaa ñëw sa kër di xaaju guddi mm-hmm. te bañ dépasse bu maañ keeg njëlu manqué nga ko def ponkal moo yar nag te moo yafal nag te yoroo ko ko ko ko ko koo fekk mu am doole ba noppi te yoruñu ko rek li xor guñ ko jiñ bug ko miimal ndax sëñ Mbay Jaxate dane ab yara daa tax ñi naan nit ka tegg ca kaw ñàkkub yaray tax ñi teggee nit ca kaw di ko di ko caw te yonante bi ba muy tagg boppam tëggul boppam lenn lu weesu ab yar adabani rabbi la wax sun borom yar na ma rafetal niñ ma yare nen nit dana yar nit sax te yéru ko yar bu baax bu defee njaaxum dañ ko naan ko la yar sun borom nag ne ko way naka la laa xuluxin asimin loolu yi moo tax nga am jikko yu mel nii sëñ Tuubaa nag ne ko kon maa ngi lay wutali yéere labbista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi maa jasal kulla ku sun borom yar nga yor jikko yu mel nii yéere yu mel nii nga war a sol ko ñaw euh, su ko defee kon sëriñ bi gis nañu jamono ji actualité boo xam ne mi ngi euh, lëmbee jamono <clears throat> rawatina yoonu murit Euh, euh, mu demee muy mbirum diggante ki nga xam ne euh, dinañ sax tudd cité ay tur muy diggante Serigne Mamor Mbacke Mourtala ak ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio Thioune ndax ci kër sëñ Touba gi nga xam ne moo nekk ci Chicago foofu ca diwaan bu États-Unis dañoo wax ne kër Serigne Touba woon goo xam ne jotagul woon sax dugg ci loxoy murid yi waaye nemmeeku nañ ne ci ci ci niñ déggee ne noonu la Serigne Mamor waxee mooy Serigne Cheikh Béthio dem na fa def fa loo xam ne moom. rafetluwu ko ba tax mu yëkkati ay kàddu moom Serigne Mamor eh, ci diggante boobu nag taalibe Serigne Cheikh Béthio Thioune ñi ngi tontu ñu baree bari jóg di wax Euh, ba mu jur lenn ci ay coow ba mu nar a jur ay diggante yoo xam ne diggante yu noonoo la su ko defee it sëriñ bi nan la ñu mën a jàngatee loolu ndax ñii nañ ne am euh, euh, maanaam lu mel ni nga jég baal ma ci kàddu gi am fecceeg yu mel noonu fa doon am ñii ne ak sant la woon su ko defee it sëriñ bi sa jàngat ci actualité yooyu ndax kilifa yu baree baree ngi ciy wax lan ngay leen foofu foofu de man sama jàngat da ci dul mën a bari ndax dégg naa moom dama cee mënta wax mm-hmm. waaw <laughs> ñaar ku ci nekk sa conscience bopp te conscience ca la nit di biddante jëf jëf ju yiw mooy tax nga mën a fi ne sàcc buñ jàppagut sax dana tëdd ba guddi conscience am bu nelaw it conscience bu du nelaw ndax dana ne tër jëpp ñu ñu jàpp ko waaye lu ñuy tudd sëñ Tuubaa lu nekk Cheikh Ibrahima taalibe daal lu ñuy tudd sëñ Tuubaa lu ne moom ku cay wax lu jëm ci yàlla ak bi nga war a wax ku ne taalibe nga ci ndigal nga war a wi diggante sëriñ ak taalibe defal mu def bàyyil mu bàyyi donc man laa xam seen ndigal def jaar ci ndigal yi bàyyi tere yi maa i rasaayil ji ma la waxoon moo ti falaayil moo yéel manaasil ba adal afaay ku dëkk ci masaaya ku ku dëkk ci rasaayaay ba noppi jot ci masaaya daal munta munta am sëñ bi dane fa kullu man sàmm ani rasaayili fa innahu yafturu bil falaayili ku woor ci caay-caay ya daal danga da nga doge li yi day am lool nag daanaka ku ne nag ak sa gisu saw gisiin ab jël ku ndaanukat nag dama leen mëne su ko jàngal ni ndax système de say moom mëne su ko jàngal bu daf ku nekk na la say rab dikkee <laughs> su ko defee sëriñ bi Fall ñu bëree bëri dañuy dañuy wax ne ñu bari di def lu mel noonu ci yoon wi liñ leen liñ leen yan a diis daal maanaam baatin bi moo xaw a diis ñu bëri noonu lañuy ñuy jàngatee <laughs> yoon wi moom lu ciy diis nit ku jaar ci ndigal moom la ñuy lay yen da nga ko àttan day ne laa yukallifu laa nafsan illaa wus'ahaa yàlla du teg nit lu mu àttan yàlla du ne du loolu yàlla lu mu teg nit daa xool ba xam ne àttan na ko fi ne eh, oto yii dong fi ne sow yu la ci tubaab bi markel xam ne la sow yi àttan na ko boo demee pombaski lañ bind ci côté bi boo demee bu chargé loolu lay chargé eh, fii ñuy peese oto yi fu ci chargé lu ko ëpp dañ koy wàññi ñi seeni dalal xel di leen delloosi. de jafe sa bànneex nag daa bokkut ak jafe ci ndaanukat. Eh. te it dama leen ne euh, yoon wi moom euh, dof ak dëng da cee jafe. ndax fi ne boo doon naan sàngara ka ko def ñu ne da koy làqoo boo dofee ñu ne yan bee diis yoon wi moom surtout sëñ Tuubaa tax na ab dof mënu fi am saay-saay wuyu mënu fi am ndax boo caay-caay goo def ñu ne da koy làqoo ndof gu ne ci sa boppin ñu ne yan bee diis boobu diggante nag man daa fee xëjut ba di wax dara foofu taalibe nekk te dib yaa ngi ci loolu foofu sëriñ nekk te sëriñ yaa ngi ci loolu dañ ah, ah, jàkka daal bu amee yilimaan am ami jullikat ay yàlla sala ay yàlla falaa ji moom bu ñu ko waxee ñay julli see tax waaye ilimaan ji fekk na ko ci digg géew ba bu rukkoo nga rukkoo bu sujjootee nga sujjoot bu sëlmalee nga sëlmal war ko maaraakee na daal ko ko dégg ñu wax ko ko daa ànd ak jullikat yi ñaar ñu bokkul yoon wu ñu jaar nag mënuñoo bokk fu ñu jëm te fi ne dama leen naan ngarale moom mën naa seq fii sëlëbe yoon yi tàmbalee waaye bis bu dareb dëkk day xar day xar jëmm te jenn jëmm mënta war ñaari gaal dugal bi tànk ca geeloo ca dugal ca bee bu bu mool yi dawee rek nga ñàkk sa bopp ndénkaan la woon yoo xam ne sëriñ bi doon na ko joxe muy message boo xam ne euh, dana dana dana amal solo ci képp koo xam ne it kilifa diine nga wala képp koo xam ne it taalibe nga nga xam ne joxewuma ko ci yenn tur joxewuma ko pour kenn nit it tur bi fi ne code pénal du ne ku diw jur nañ ko tëj danaan ko def jikko sàngam code pénal ba nag moo maanaam defu ba nagay wombat nit ba ne procureur ki nga doon laa ngi nii kon mbokk yi seetaan euh, seen euh, site internet bii di Touba Argentine TV euh, lii nekk na loo xam ne lu am solo la te yaakaar naa ne it ñu bare bari danañ ci bëgg ci kàddu yu ndénkaan yoo xam ne sëriñ bi dénkaane na ko ci actualité yi nga xam ne mi ngi xew ci jamono beneen bi ci topp mooy gis nañu bu yàggul euh, seen soxna génn ci internet bi sëriñ bi di wax ay kàddu yoo xam ne tegginewul nga xam ne population Sénégal bépp la tooñ muy wax ci mbirum xeet ak lu mel ni pël ak ay wolof ak yu mel noonu jàpp ne xeet dafa gën xeet ak yu mel noonu sëriñ Cheikh Fall jombul na léeg-léeg yaa ngi suivre li nga xam ne moom moo di actualité. soo ko defee yooyu nga xam ne mi ngi am internet bi lan moo tax rek nit ku kum neex rek. nga toog jël sa portable wax lu la neex wax sénégalais lu la neex te yoon bu la jàppee ñaari fan ñett tegg la loxo. internet moom la ma leen ci waxan xanaa wax naa leen ko lépp juróomi at te lii egg si wut mm-hmm. dama leen ne internet entre nit ak nit la waaye nit ak dof du ko suyee bu ci dof jotee rek def ci yëfi dof Facebook it dee ci def lu fees bët WhatsApp bet wattu cee def luñ sib nu yooyu laa leen waxam loolee nag ba tey mooy doxandi xam nga fi ne diggante xeet ak yooyu yëpp doo do farata fi ne li wex na di saf ci li li sa wex na di saf ci gimiñ wolof moom lay saf ci goog pël di ko saf ci góog naar bu laa nga yi dëgg moom ngeen du ci safaan ak morom te sëñ bi dane adduru wa nafa min arrahmani laysa min al bidaadi wa soodaani adduru wa nafa min arrahmani laysa min al ahdaay ak ahbaab ak nee na lor ak njariñ nekkul ci sa loxo yi soppe nekku ci loxoy der bu ñuul ak bu xonq ci loxol yàlla la ne inna akramakum indallaahi atqaakum daal la suñu borom daa wax ne innamal mu'minuuna ixwatun ba mu defee loolu ba noppi nag da leen ne couleur yi lu bi daal ki gën a ragal yàlla lay faral inna akramakum indallaahi daal atqaakum ba ñuy dem màkka mun leen tasawadoo ñi ñi dañuy wuuti muuraakee ki seel mun leen fa inna xayra zaadi taqwa taqwallaahi daal mooy mooy yóbbal bi ma soxla tey yaara ki teggin moom daa baax fépp ndax yonante yi sax ak wali yi xutbu samaan yi yàlla da leen a yaraatan ca guddi ga yonante bi rañaan di dem asamaan mm-hmm. ndax dañoo dem ba baytul muxaddas sun borom euh, euh, baytul mahmur mm-hmm. sun borom dajale fa seen ru yëpp sëñ bi ne na sëñ bi ne na sëñ bi ne wal anbiya wa jami al mursalina maan taallamu minhu aadabal ibadati gannaaw dem mën ngaa dem ba di yonante wala ngay wàll yi wala ngay xutba samante sab yarmanke ñi yaraat la Moussa ba muy daje xular ak taalibe lañ ko doon jàngal waaye demal na ba di yonante dégg kalaamu laay te ak taalibe la amut woon moom la ko xular doon jàng fala tasal ni an sayen ataan di si làkk minhu sikran mooy mooy mooy aqiqa sari sariha di fasaloo ahlu sikri in mooy laaj leen ñi xam gannaaw xamu leen aqiqa nag ne falaa tasal nii an sayin atawdu si lakk min sikkaram bu ma laajte bu ma la sante defal te bul ne ma ne pourquoi dama ne nag yàlla nag gannaaw moo bind ñëpp ci coobareem te lu ko neex def te moo yor doole ji ko kum du gis kenn nekk ko quoi kenn jëm jenn jëfam du du gis kenn ne qu'est-ce qu'il y pour jenn jëfam du pourquoi di topp wërta mën a am ah, su ko defee sëriñ bi nga xam naa it bëggoon nañu nga defal ñu rek it sa sa jàngat ah, ci ci ci tolluwaayu réew mi la tant que sama natango Abdoulaye Samb ñàkkul ne am na benn laaj wala ñaari laaj yoo xam ne war na ko laaj ki nga xam ne moom moo di sëriñ bi ngir mu baaxee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki jullit yi ak euh, mbokki taalibe yi sa jàngat ci ci ci tolluwaayu réew mi jamono ji ñu baree bare ngi ngi di di di jàmbat soo ko defee sëriñ bi nan la nan la gisee doxalinu réew mi ndax gis na ne mi ngi ci yoon wi di dem wala boog euh, gaa yi wàcc. xam nga yoon wu ñëpp ànd jaar moom moo moo moo mun tam fii na gaar ba raay ba ne sax da ngay gis ñu yëg gis ñu lang gis ñu taxaw fi saxaar ku ne ci saxaar daal bu départ yóbbu la waaye boo nee fi saxaar nag bu départ fi gaar bi la lay bàyyi boo demee caaro yi da nga ci xam lu bari kon yaakaar naa kàddu yi am na solo le temps rek ñuy ñëwaat ngir eh, tàggatoo ak sëriñ bi Abdoulaye sambu moom tamit su ko defee ñàkkul ne rek am na lu mu ci war a laaj sëriñ bi rek su ko defee Abdoulaye su fekkee am nga benn laaj wala wala ñaar rek la tànk que ñuy tëj jëf. waaw ah, jërëjëf euh, Arona xanaa di la remercier bu baax di remercier di di di sant sang bi bu baax di ko ñaanal Euh, kaddu yi ñu ci am comme li ñu ciy def rek euh, mooy euh, woyof gi nga xam ni sëñ bi wane na ko te woyof euh, tooy macha allah ba pare dis gan. Mm-hmm. Euh, man loolu laa am loo xamante si ni euh, loolu laa ko bëgg a laaj lan mooy li nga xamante si mooy laaquwaayu sëñ bi ci yu mel na ndax gis nañ ci moom ay qualité yoo xam ne ñi ëpp ci nit ñi bu leen ko gisee dañuy yëkkati mbagg ni ñoom la. Mm-hmm. li nekk ci jëm ji. Mm-hmm. lan moo tax nit lot na nit di ko xam te li fi nekku ci ay tànkam. loolu dafa coobaral sunu borom ne ni ko. innaka lan taxruxal arda walan tabluxal jibaala toola wala tumaasi fil ardi marahan doo guddee na doj yi doo dangi dangi te ba bënn suuf si kon jërul ngay dox di dem taalibe man dama leen boobu yar di benn sama jëmmi bopp ji doo nga laa ci yar nu ma waay di def it na ma yàlla def tax na ma muñu ko na nga ma def la ma séq ak yàlla dana ma may jaam bu ne lu jikkoo man di mel ak nu meloom man mel ma xool di sama digg ak yàlla ci moom gannaaw yàlla xamal ne kii mënut a ñàkk dal te ba ma bindee la ko bind te ne derub mbaam jeex na taxul mu bind nu di nit ndax da nga gis mbaam moo mag bu la boolee ci wala xadd karam na bànne aadama ji daal teraanga jam la boolee na nga cee sax te teraanga ji du weesuwut nangoo jaamu yàlla dib taalibe nangoo nooy di eh, sax ci sax ci jub waaye leneen loo def bokkut ak li tax yàlla bind la gannaaw fi asani ta wala fi xalak wa sawrakum fa fa asana suwarakum mooy bind di melal te melal na la melaw wi ko gënal fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin la ci teg bi mu bindee doomu aadama ba noppi bindub yonante bi dane maa rafet nu ma leen bindee tagg boppam kon nag di bu dugal leen ci fi ahsani taqwiim yóbbu waat sa bopp ci asfaala saafiliin nag jikkoo ko yóbbi borom jikko nag da cee am yooyu bu jukki bu ko nit ki jukkiwul ci boppam du baax rek ndax daanaka liy tax a baax ci jikko la liy tax a bon ci jikko la fexe ñu baax ña nga di leen roy daal ña ñaa ña dafa leen ne fi ne nit ku baax moom ah, ah, lu bon lu ne mën naa am sën boo ko sànni mbëbës ak fu nee ngi fi waaye nit ku bon amut sën boo ko def kii yées ci nit ñi mën naa bokk ci sàppe sa jëkk ci jumaa ja waaye yaay am sa poubelle xel boo koy tàbbal boo xam ne bu doon sa limaam nga xam ne baaxut su ko defee kàddu yooyu mu sëriñ bi leeral am na solo su ko defee loolu nga gis ci moom am na jàmbaar yoo xam ne moom la nekkoon ci ginnaawam muy sëriñ Abdou Lahad Mbacké su ko defee sa sa relation ak sëriñ Abdou Lahad su ko defee sëriñ bi bëggoon nañ nga nga nga nga ñëwal. sëñ Blade moom daanaka xanaa damaa màgg fekk ko ak samay waajur rek daa jaaxasoo nag sama kilifa di fi ñëw daanaka dana fi ñëw benn bis lu man ñett yoon wala ñeent. di fi am ay fan am na doomam di naan sëñ Abdou Samat. bi mu defee xalifa matul ñetti weer xanaa ci la wàccub liggéey. sëñ Samat moom bu ma saa tukki man bu ñëwee fi danaa ma bàyyi faal ma dénk la sa mbokk mi fi man la koy bàyyi buy dem bu dee tukki bi si ñetti fan yeeg yenn fan yi day ñëw fii ne fi lay jënd bis ne kër Cheikh Ibra bis bu ñaaw nekku si day ñëw fii fanaan fi bu xëyee dem bu naree xëy ci ñetti fan yi fii lay fanaan hmm. bu xëyee dem hmm. am na jarbaatu sëñ bi bu mu ko joxoon nga xam ne waajur mu jigéen ak sëñ Aliou bokk ndey ak baay ñi di ko wax Soxna Fall Jaxate hmm. moo jur ki ñuy wax Soxna mi Coole Cheikh Coole yor ko kookee fii la nekkan ba muy génn ca bokki bargaat sëñ bee sëri fii yéen war a ngénte yëpp yóbbu te diggam ak sëñ bi daal lu yàgg la te am na dem na ba jamono yoo xam ne danaa wax ne sa sa bàyyi jaaxal na ma ndax bu ma ñëwoon fi moom dafa daan jóge ne mu dem Daaru Salaam ci sañ Modou Mamoun mm. bu dëppee jaarat fi léeg fi dem feneen dëppee jaarat fi mu ne dama jaaxal ci sëñ Aliou tukki du génn buntu këram bii ndax moom añu ajuma yi sax daan gunge ci buntu bi la yem bu génnee ba ci xay yi wàññi ko duggaat ci biir te daanañ fi indi dof wala ko ñu yeew leen yeewi leen bu kiyee mën leen na ànd ci gunge bi ba pënd bi dugg mm. bu dee koora moom bis bu set lañ koy def léegi nag sëñ bi ne li ma ci jaaxal yan bii mu yanu ak doomi sëñ Tuubaa ku ko fi gane si tey fanaan fi yendu fi balaa am ñaari fan ñett kenn ñëw fi te ne li may jox bu ma bu ma duggee ci kër gi li ma jox bu ma demee Daaru Salaam dëpp jaaraat seen mu jox ma leen toll daal ne yéeme naa ci Cheikh Ibra bu sëñ bi nee ci bi danaa nañ ma wool Baye Fall bu ndaw bu mu ne bu ndaw ko nga gis bu mag moo def rawaanam <laughs> bi sëñ bi wàcceeb bi mu ñëwee li ma jëkk wax mbaa xam nga ne dootoo Baye Fall bu ndaw bu mag hmm? <laughs> ñu daan jébbi leen ndeysaan bu ma ko yóbboo daa wax ne na gileem gi jaar ci kanamam jàll hmm. xar yëpp jaar ci kanamam jàll ak ay tappee ki mu kat yu ma yóbbaale ñu yëpp rek bi mu jàllee mu ne ma yow saa taxawee maay taxaw fi kanam sëñ Tuubaa seeral ne ko yaak ñi nga àndal la nga digg woon ak sëñ Tuubaa wóoroo ci dara xam naa rek ngir waajal jeexal ñu bare bare dañuy dégg ci jamono ji ñu naan euh, situation jamono ji wala yi xew ci yoon wi kilifa yi ñi war a wax dañoo waxut ak yeneen yu mel noonu est que it ab taalibe war nay soññ sëriñ bi pour mu wax ab taalibe warta soññ bi pour mu wax waaye ab sëriñ ñu a toog ba taalibe ko soññ ci mu wax ab aw ab aw ab gàtt daal buy wutal boroomu sàmm bañ a ruur a tax bu ko sàmm dimbalee mën naa bañ a ruur foo fekk nag bu dama béjji ni sàmm buy bañ aw nagam ruur ko waral waaye sàmm bu jekki ba nag yëpp xam ne sàmm bi ruur na moom la ci sàmm bi <laughs> nag yu ruur ci sàmm bi mën a leen maa i rasaayil daal la sëñ bi wax muuti falaayi eh, eh, sëñ bi daal dane raahiri jaali is na na saay hmm. ak rim baali am xiyaali raahiri jaali na sàmm góor ñi sëngi jigéen ñi sëñ mu Moussa ne sàmm na sàmmoon na te mus sa róorle te ñi fi daan sàmm gënuñ koo suur raa i raa i rijaal yàlla na bàmm sàmm is na saa yi sëngi woon ak jàmm xam nga di sàmm suurle te doo róorle daal moo moo moo moo la sàmm di juddoo waaye fii ne ñi war a wax buñ noppee ñu wërta waxe wax te ñi wërta wax bu ñu waxee waxuñ joxum te kóolutee muñ bu mu fexee ba mu wëtti lépp du jof mooy bi sëñ bi naan rajo bi bu dul woon bii nu yemale ko ba ca Mali wala ba ca Guinée hmm. waaw ci boobee nag yàlla daa def keroog mu fekk may xelli kaw bi nu ma ko sottee ci sama kaw ak nu ma ko tuuree xaw ma ko hmm? dajale bagage yi woon ci kër gi lépp roñu ko yuti ko sëñ bi mu daan ne gé nga firnde sëñ Tuubaa ngi nii keroog am na yu ma nettali sax yooyu ma ne du ma ko ñemee moom mm. waaw ca la bàyyee woon nag rajo bi ba ne dañ ko yemaleeg ba ba ca Ginne daanaka nag dama leen seen rajo yi meññatum sëñ Abdou Lahad moom ca la jóge ah, waaw loolaa ko loolaa ko indi ba mu toll nii te dafi daan dikk dikkee ba mu yàgg mu ne na ma daan ni ma defanoon sa baay ne laa la def waaye <laughs> mu fii bokk ngaañi ma ndax di gone ba noppi ma di la dër dëree waaye danaa fab ci sama jëm indi fi ci la fi indee doomam ji 79. waaw noonee mu seqan ak sëñ bi nag daanaka du lu neex ak kii moom ah. ndax bi sëñ bi demee rek am na lu mu séq ma di ko wax ak moom ba yàgg daa dugg ci biir donc sum mbubbam ñëw ne ma jël jëtloo kii waaw hmm? ah. la cee naw ndax sëñ Tuubaa la ko sun borom ma saa jox hmm. da ko naan lii taxumaa jóg bëgg mu yokk ko hmm. kon nag fitu woowu nga am ak kii gi boo nangu woo wàññilu lii attan ko nga ñaan jiit loolu loolu li ma la jox ne ma nag man ne boo demee su na nga ko jiitloo ma summi ko fi kanamam sol ko mu ne ma waaw góor daraja de loo ci wàññil sa bopp sun borom yokk ci lu góob waaye loo ci yokkal sa bopp mu wàññi ko ma ne ko ah mu ne ma wax la ko nu leer ma ne ko ah mu ne ma nit ki bu ñu ne diw la ne boo ne ñii dañ maa xamut waale waaye yonent la ne dañuy dindi wàll yi gañ la tegan dindi yonente gi nit ki nga sañ a doon simple sax dañ naan kii nag daa dof kon ñi ñi sant mbokk yi nga xam ne donc ñoom ñoo ñu doon seetaan di fàttali nag ne Cheikh Fall Mbawar moom la ñu àndaloon moom sëñ Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima ci ci ci kaddu gi rek seen mbokk Arouna Cissé Serigne bi xam naa ne su ko defee waaw su ko defee lan ngay wax ci euh, Touba Argentine TV gi nga xam ne euh, macha door nañu seenub liggéey fii ci Sénégal waaye nag ñu dooree ko ci yow nga xam ne première jataay bi ñu njëkk a def fii lañ ko defee ci sa ëtt lan ngay lan ngay mën a wax rek ak tur wiñ ko tuddee muy Touba Argentine sit bi kay ni ko li sëñ bi wax rek la sidd ni da fataha ku la yow mi sahaadatan wa bi ya basir xaw mi nee na ko suñ borom di gën tam bëggale ko aw nitam seen sit biir na doon loole ndax ci xentu baax ak sax ci taalibeek leeral farata yi rek laa leen xame ndax xam nga rajo maanaam doon na nga wax lu lu njooxam wala ku bëgg a dégg njooxam ne naa jàpp rajo sàngam dëdul farata bari na yu jaaxasoo yoo xam ne ci rajo yi la jaaxasoo ndax ñooy wax jaaxle ci mbir ak taale ko nu mu eggut loolu nag boo ko defee mën ngaa yëngal bopp yi te fii ne foo gis gaaw tànk yolom laa ko fa yóbbu lu waaye man di def daal mooy wooteeg falak nit ak fooleeg ku ci nekk nga bëgg a faral daal mën ngaa farak moom ci yiw ak teraanga te ànd ak taalibe ak jub dama leen fi ne lang yi ndey yi ne ci apprenti yenn yi ak xuloo yee xeex yi du ci oto bi du ci permis bi ci jikko jiñ jëlee ca gaaraas ba la oh, élection yi yiñ ciy jiiñ yëpp dañoo yor seeni jikko yóbbaale fa waaye carte yi moom du xam kenn ci nga tooñ du xam kenn ci nga xuloo boo ko fawut fa mu nekk du fa jóg hmm. loo ci mën def daal boole ko yar ak teggin dañ naan nag eh, nuñ ko tuddee ci eh, laïcité la hmm. te laïcité du laïcité laa isata la te teewul nag fan laa isata wala rasul yi hmm. day nag démocrate ni muy doxe da ci am ñooñ boo ko séqee baadoo la bëgg gedd sab cër internet bi kii bi snap bi am na noo ko waxeeti kon de hmm. snap bi dama leen fexe ba jana ba di la ci jóge du farata <laughs> xam nga sa bopp ak naan maa jonga ma ak yooyu koy defe da ngay fexe yor jikko ju baax <laughs> ndax noo man di mel këll bu ne danaa mberu sum déggool eh. jub gi na farata ji rek hmm. fexee jéem a waaye loo dégg ci télé bi loo ca gis bëgg ko roy du farata hmm. nii xew daal nii gën da koo gën whatsapp bi nag whatsapp bi dama leen wattu cee def luñ sib di leen ci wat wartoo def ñu sib net bi man leen loo ci mën di nëbb day feeñ jikko ci dugg ci jikkoy nët bu mooy farata te internet entre nit ak la nit ak dof du ko fees bu def ci lu fees bët réew mi dama leen naan fii ne ñu jàmbatee naan daa yàqoo reewande ak yëf yi bu ko ne fàqeeb yar bu dee benn nga yare ko sa bopp daal kenn ku ne bu jéemee yar sa bopp bu ci ñëpp maasee mu baax waaye mu réew bar ca bóor ak taw ba bar ca pepp ak jigéen bar ca góor dara du ci jur jàmm dama leen jëfe ak jafe bakkan yomb naa xàmme jëfe ndigal moom mooy fo fosu course ci ndigal lay daw waxtu wu teere danañ ko yëkkatil drapeau mi sigal ko moo dana dundal borom dundal parfumé bi dundal ki ko doon ki koy ki koy sang ko womat fas wu ne nga xam ne ci bànneexam la dawee dog mbaa dee rek bu dabaat yeew dong la ciy jële waaye leneen du ko jam bu dugul déewul dal ci bant bu ko jam daal doo fabaat yeew lañ ciy jële na ñuy dox ci ndigal rek ñi ngi lay sant bu baax macha allah di ñaan suñu borom ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk suñu borom gën laa kattanal bu baax mm. ba nga gën a yaatal sa liggéeyu wajur wa signal yu Fall Mbawar yaatal sa liggéeyu Mamba Ibrahima Fall mm. ndax gis nañ liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci yoon wi di ko def def ci ñi nga xam ne ñooy jaami yàlla yi képp koo xam ne rek taalibeb sëñ Cheikh Fall Mbawar la euh, bu wér boo xam ne sëriñ bi nangul na ko taalibeem soo ne koo jàkk rek di nga xam ne ki sëriñ bi am na lu mu def ci moom euh, kon nag euh, moom ñi ngi koy sant bu baax lii rek moo taxoon ñëw fi ndax wolof day wax ne ki jëm ci xur wi su bëggee xam yi ca wa day wax ka ca génnee ngir mu wax ko yi ci ni yéen ca xur wa waaw xam nga dañ naan fi ne ganaar boo du topp kuy taxane bàyyi kuy bojj waaye kiy taxane bu bëggee cere ganaar ganaar day sonn donc <laughs> a sax ci ndigal yi <laughs> bàyyi tere yi képp euh, alléer bi war a bay tool yi daal bu saxeem ñax tool bi du set te lislaam ji kilifa yee ko war a bay ak saxeem ñax tool bi du set tool bi ci boppam day jàq <laughs> kon nag nañu fexe ba dagg alléer yi mu ñawte set bañ a sax ñaw ñax ci kaw sëñ bu mag bi dane woon bi ko euh, bokk yi nee danoo bëgg li ngay dem ci li ngay jëf ci sa digg ak yàlla ak di ko tali ciy téere ka jubbanti ni ñu baax ñu ci yàlla hmm. danoo bëgg bu nguur gi ñëwatee nga banoog ñoom nuy wax ak ñoom yow nga féeteeg sa borom sëñ bi dugg ca biir tëju ni leen bàyyi leen ma neg leen ma diis ko sun borom dem dellusi ne leen sëñ bi ne sun borom nee na mën ngeen a dellu ci yitte ya ndax dana ñaari ngànnaay yi tubaab bi am menn mën a ci man dara muy xëpp ak xupp dañ lay xëpp alal nga nangu li ñu lay def wala ñu xupp la nga ragal nangu la ñu def mu ne xëpp ak xupp nag menn mën a ci mucc tabaski mii nu jub dong dama leen naan fi ne eh, eh, jaam bu nangu ndigalal boromam ak doom ju nangu ndigalal baayam ak soxna su nangu ndigalal sëriñam eh, la ko tuddee ba mu juree ismaila iblis ne ko sa néeg ba gan sanc na fa mu ne ko gu fa sanc mu ne ko doomam jàll ko gën xam nga yàlla ci xol lay ne ci nit mm. naanu aqrab min ablil warit mu ne ko maa ko gënal mu ne ko gënaloo ko de doom ji la gën a bëgg mu ne ko bis dana ñëw mu leer la <laughs> ba mu ko géntuloo ay yoon ne ko na ko rey mm. ibrahima da ko wax doom ji doom ji ne ko bu la ko sun borom sante def ko mm. oh, oh, sarta ji do insha allah ma sabirin da nga fekk ma bokk ca woy muñ defal li la sun borom sant mm-hmm. ba mu koy def ismaïl ne ko na paaka bi ñëw mm-hmm. sumil yére bu ci der taq ndeyam di ko xoolaat mu mu ñaaw ci xelam mu du ko fàtte te bëggul diggam ak yàlla yàqu yow mi mit la sa borom eh, sant jëruma ko suñ diggante mm. defal li la yàlla sant ba mu koy rendi suñ borom daa yebal jibril wa fàdday naaw bi si biin asi min la wax mm-hmm. gàtt boo xam ne ci boo bis la jógee aras wàcc mm-hmm. moom la faroon te paaka bi daas na ko ba mu ñëw takk ba di bu bombee paaka bi bañ moo li ma leen naan reen ndeeg dagg ak lakk ak tàng ak sedd ak yëpp ilaahi yeeg yàlla gee ciy dugg waaye bu dañee ci paaka munta rendi mm-hmm. bu dañee ci sawara du lakk ndax yaa naaru ko ni bardan wa salaaman ilaahi yi ga lañ ci dindi sawara wa mën a tudd woon a lakk ibrahima daa mujjën consolé mm-hmm. <laughs> paaka baat dagg na ko ci mu të mu jëlug weñ feles ko ca weñ ga dagg daal di fële <laughs> ba mu bombee ba defee na dagg na suñ borom wutal fa mu xar mm-hmm. nga xam ne xar maa far uh, wut uh, ismaila moom mu defee ne ren na ismaila tekki bët yi du ismaila te deret taq na ismaila su fekk jibril suñu borom da ko ne boo fekkee mu rendi ko danaa la jëlee ci kuréelu malaayika yi jibril ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw la su borom la mhm. ne na ne jaral naa ko jaral na ma mu rendi doom ji ba suñu borom wutal nga xam ne moo fi wottil boppam leneen waaye moom def na ndigal sant na yàlla ismaila ne moom sant na yàlla gannaaw ndigal mhm. yàlla gannaaw ndigal la yàlla sant na borom këram mhm. mu war koo def ci doomam ni doom neexe ndigal la yàquwut ci moom sant na mooy ñeenti alhamdulilahi rabbil alamin yooyu ñuy wax ñu mboolem xaaj yi cent li lay ñeel na yàlla suñu borom te booba iblis ñëwaat na ne ibrahima mhm. dangaa dund ba màggat sooga am ji doom suñu borom bu la ko reeloo du sab xarit sab noona mhm. mu dóor ko juróom ñaari doj mhm. muy jamratul ula yi ñuy sànni léegi euh, jamratu ulaa la ak wusta ak aqaba mooy ñooñe mu waxaat ismaila la ko dund ba xale bu góor boobu ku la gis bëgg la sa ñaari waajur yi bëgg laa rey te ñoom fooyee nañ seen àddina ba mu jeex lànkal kookaat dóor ko juróom-ñaari doj mu dem na ndeyam sëy nga ba màggat jenn doom nga am ñu bëgg koo rey sa jëkkër ji bëggu la te dana wuti jeneen jabar moom mu dóor ko juróom-ñaari doj doj yooyu ba tey moom la ñuy dóoree fa màkkat xar mañ fa jotoon mooy mi jaar ci ndigal ak ñàkk jaar mm. moo tax ma leen soxna yi su ci gën su ci jubóog jëkkëram mooy saay saayu soxna yi doom ji ci noonu ak bàyyi mooy saay saayub doom yi kilifa gu ci noonu ak yàlla yaay saay saayub kilifa. période tabaski. Eh, ñu gis na it macha allah yéen Baye Fall yi yéen a ngi ci def liggéey bu am solo di jël ay tabaski di ko yóbbul ki nga xam moom moo di sëriñ bi. Mm-hmm. soo ko defee rek ngeen dellusiwaat ñu ci liggéey bu am solo boobu. waaw tabaski yi de mooy mooy noonu ma la wax rek te maam suñu Ibrahima la tàmbale woon far nuy suñu kilifa tudd Ibrahima état bi melate Ibrahima la suñu borom wax topp leen ngirum suñu maam Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall bokk ci maam suñu Ibrahima daa ko defal suñ Touba bi mu fi jógee suñuy waajur di ko def nun it bi mu fi bàyyeekoo ni di ko def biñ koy def nag man bi mu egsee fii damay jëndaat giléem it yokk ci ndax dama leen naan li ñu naan loo yokkut yaa ko wàññi te dama leen hippopotame sax bu dagga naan bu ma ko mënee am yóbbaale ko it sëñ man bisu juróom-ñaari fan ci tabaski yu laay jébbali ji incha allah buñ ne tey ci boobu bis daan yóbbu ndax xam nga teel ko ko yit it muy xontaka yeneen ci moom du farata bu fi yeere ñaari fan ñi mu koy séddale dañ leen ko mën a jox yi ñu ciy téye ci kër gi ñu téye ko fi te coono du caan waaw boobu ko defoon moom it booba mooy at mi sëñ Abdou Lahad di soog a def xalifa rek xam nga ma daa mën a aalu daa joxe xare yëpp ba mu jeex bañ julli jee ba ñëw sëñ bi eh, ñi taxaw ci bunt bi ak saako fi neen mu téye ci car bi nee nañ indi gàtt bi ñi indi ko ba di ko bëgg a reyandi mujj ne nañ ko yëkkati ñu yëkkati ko mu ne ma Cheikh ñëwal ma ñëw mu ne wol sa Baye Mbaye Sanar mais moo woo Baye Mbaye ma ànd leen ma ko sëñ Abdou Lahad ban demee noo ngi fekk sëñ Abdou Lahad yor paaka ci loxoom day joram néeg néeg bi mu ne mu téye ci bal gànn ne waaye Cheikh Fall egg leen ba ma rendi noo ko téyal mu rendil ko boppam muy ba mu ñu soog a def xalif nga xam ne fii euh, moomee at tabaski gañ la sama waajuru jigéen moo jox sëñ bi am xar mhm. te xar mu jigéen la xar ma réer ba timis euh, dem nañ ba reer muy soog a feeñ ñu di ko soog reen mbokk yi xam ne ñooñu doon seetaan seen site internet Touba Argentine TV ci kàddu gi seen mbokk Arouna Cissé feggoo ceeg Abdoulaye Sambou ñi ma nekkal ci wàllu euh, caméra bi di Cheikh Sambou ak Abdou njaay sant Gora sekk bu baax ak mboole mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan bu Argentine jaajëfalaat sëriñ Cheikh Fall Mbawar mbokk yi ñuy seetaan jërë ngeen jëf kon sant gërëm ñëpp wasalaamaaleykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.